asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fu ñu mën nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaara di leen nuyoo fii ci jumaa yi Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba ci euh, télé bu mag bii nga xam ne mooy MKTV di télé juma ji tey jii nag mu doon ñaareelu fan ci weeru Ramadan dëppoo ak ñeenti fan ci weeru avril deux mille vingt-deux li ko waral nag ni nga xam noonu lañ ko baaxoo defee waxtaan yi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi koy ànd ak mboolem jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Sénégal wala àddina partout rawat na fii ci diwaanu Touba ñi koy fekk si tey jii nag. ginnaaw bu nga xamante ni def nañ waxtaan bu noppi ndogu bu noppi amoon nañ gan yu sell yu mag yoo xamante ni bokk nañ ci dëkk bi bokk ci ñi ngay ñi nga xam ñuy jagal dëkk bi euh, loolu nag moo di safinatul amaan mi nga xamante ni moo yor kaaraange dëkk bi moom lañ ci wóolu moom lañ ci doyloo suñu Cheikhouna Mbacké teewal leen fi dañ ko jox kaddu gi mu am kaddu yoo xam ne ko yëkki relation bi nga xamee am na diggante Safinatul Amaan ak Daa'iratul Xadmatul Xidma te lépp muy ndigal loo xamante ni ñu ngi koy jëlee ci ki nga xam ne ci ñoom moo fi nekkal Serigne Touba Cheikh Ahmadou ñuy liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi kon si Cheikh naa bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. Ah, jërëjëf sëñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant <coughs> ci teewaay bi ak ci weeru tedd wi ñoo ngi ñëw nag ci ndigalul Serigne Mouhamadou Lo Ngab mi nga xam ne moo dox suñ digg ak sëñ Muntaxa am na keneen ku nekk ci suñ kanam ñu koy wax sëñ Mbay Saar ma ànd ku ñuy wax Modou taal ak sëñ Modou Fall Modou Fall nag daa am ngànt daa am teq-teq am na ku ñu fi fekkit ci léegi aksi ñu koy wax fañ fàllu juume ci ñun la bokk mën naa ne bi may ñëw ci laa ko fekk mu mu moom daanaka mën naa ne mooy premier membre boo koy xool ah ñu ngi leen di sant ci ndigalu sëñ Modou Lo diggante daayiratul muxaddamatul xidma ak safinatu amaan liggéey wax cere ak soow la bu xasee jaxasoo mën si leen a teqale ndax sëñ Modou Lo dafa wax ne daf ñoo mos a wax ne Touba dafa rëy ñun ñii dañoo jàpp ci ab koñ te yéen it gam da jàpp ci ab koñ ah ndax ay koñ la bu kenn ku ne jàppee ci koñ nag mën naa mën lu bari mën naa defar waaye dana des ay koñ ndax yéen barab bii ngeen nekk nii muy fii ci fi jumaa ji man mii di wax ak yéen sama waajur ci ñi fi njëkk nekk la bokk fu naqaree sàmm la lu doy waar la ndax lu ne fi lu ne ngeen fi lu ne fii ñëw bu ngeen fi nekkutoon dana doy waar lool lool lool lool ndax seenu liggéey day man mën naa cee wax dara ndax am na loo ci fekk ndax bu njëkk bu nu musaan di julli fii it wala tabaski maanaam jaxasoo bi dana doy waar lool waaye bi ngeen génnee day ak léegi loola deñ na waaw xam naa daal moom mboolem loo xam ne si sëñ sëñ doon na ko bañ ci jaxasoo góor ak jigéen yéen yéen a ngi yoon woowa ñun nit ñu nekk nekkal leen ci biti di xool li nga xam ne mën nañoo fexe ba buy ñëw fii defaru ñu ne ca ñun daal man li ma leen wax mooy moo ñu ngi mel ne ñun ak cere ak soow Sëñ Tuubaa nag ku koy liggéeyal moom ngërëm nga ci wul ngërëmal moo gën àdduna ak biir jaxasoo bi daal moom am na benn lañ daanaka xanaa tur yi ñooy nekk naan Safinatoul Amaan waaye Xidma ak Safinatoul Amaan benn lañ ndax li ko waral mooy sàmmal sëñ bi dëkkam bi rek la waaw rawatina nag fii nga xam ne mooy digg dëkk bi ñun daal ñu ngi leen di sant ci ndigalal sëñ Modou Lo mën mënoon a teew mooy teewal boo xam waaye mu ngi leen sant ndax fii ngeen nekk ñu fi am na ñu fi waroon nekk yéen leen fi nekkal mboolem ku nekkut fii yéen ko fi nekkal yàlla na seen borom gudd suñu borom guddal seen fan yàggal leen fi wér leen may leen kàttan te aar leen musal leen ci lépp luy lor li lore yàlla bu mu jëm si fii barke sëñ Tuubaa sant nañ bu baax jërë jëf jërëjëf koy jaajëfal bu baax ci kaddu yu am solo yooyu daayira Muxaddamatul Xidma ngi jàpp ko lër googu fas yéene ko dundal bu baax a baax comme ni nga xam ne noonu ko ko waxee incha allah jaa ngeen jëf.